jërë ngeen jëf fan la Ousmane Sonko toll tontu li mu ngi ci xët mu njëkk journal Les Échos ubbil yéenekaay bi xamal nañu ne li tax ba ñu dindee mbalaanum kiirlaayu Ousmane Sonko keroog àjjuma ci assemblée nationale boobee ba léegi déggaatuñu ci dara moo di juge bi huitième cabinet bi yore dossier bi jotagul këyit wu koy firndeel ne assemblée nationale dindi na immunité parlementaire bu Ousmane Sonko te li fekk jotul loolee du mën a convoquer Ousmane Sonko loolee nag mu di leetar bi te juge bi avancé journal bi nee nañu tey jii ca la ko assemblée nationale war a jébbal ministère de la justice moom it mu jottali ko juge d'instruction bu cinquième bu ca jotee ca lay soog mën a convoqué Ousmane Sonko sursoi nañu moom njiital parti Pastef gi di Ousmane Sonko ak li wax ne fenn la demul loolee bu ca delluwul gannaaw bu ñu ko tegee loxo bu boobaa yëf yi du sedd ci moom ndax kaso la koy yóbbu dañu koy mandat dépôt directement lëkkotijee nañoo coowal Ousmane Sonko ak am na benn policier ak benn gendarme bu ñu ci jàpp ba jébbal leen brigade prévôtale li ñu leen di tuumal moo di nee nañu dañoo Cissé Sirwé libération nañu jàpp gi ñuy jàpp ñuy jàppal tànk Ousmane Sonko yëf yaa ngay gën di law di gën di wéy ndax ci diggante àjjuma ak samedi bi weesoo jàpp nañu ci ñoom lu mat ñeen fukk ak juróom-ñaar ba ñoo nga ña garde à vue am na ci ñoom ay étudiant ab chef d'entreprise ay délégué médical professeur français ay agent yuy liggéey ca Senelec ba ci ay commerçant jàngalekat bii di Dame Mbodj libération nañu moom it jàpp nañu ko moom ak Abdou Karim Gueye moo waral kuréelu syndicat jàngalekat yi di GV bëgg a yëglu li ñu fas yéene moo di du mooyu njàng mi ngir di ñaawlu jàpp gi ñu jàpp daam mbóoj ak yeneen i jàngalekat yi ñu fi jàppoon bu yàggul loolee la ñuy jébaane li Ousmane Sonko di wax ak a mu di complot bu moom la ñenn ci ñu nekk ci état bi def ci mbirum Adji Sarr Sud Quotidien nee nañu ci gi am na ñenn ci ñoom ñu ci indi ay tont bokk na ci ñoom honorable député Abdou Mbow mi xamle démb ci di Grand Jury ne APR am na yeneen njiite yu dul di complot ma Samba wala ma Demba Seydou Gueye nañu du APR tey du état bi amul kenn ci ñoom koo xam ne taqe nga baa nga laale ci coowal mbës mi docteur Momar Thiam di spécialiste ci wàllu communication xamal waa Sud ne am na ñoo xam ne ngir bëgg lu neex seen kilifa dana tax ñu jóg def loo xam ne kilifa gi santu leen ko du yëg du tiin niti diine yi jóg ci seen coobarey bopp ngir dox tànki jàmm ci coowal mbës mi l'observateur ne nañu demoon nañu seeti Ousmane Sonko abbé Jacques Seck la Mame Matar Gueye imam Youssoufa Sarr ak imam Cheikh Diop ba ñu demee cité kër góor gi kër Ousmane Sonko la ñuy waxtaan ak moom am na lenn lu ñu ci L'Obs wax ba wax ñu ne ginnaaw seenub gisee ak Ousmane Sonko war nañu gisee it ak bu jigéen bii di Adji Sarr la Sénégal nañu abbé Jacques Seck ak Mame Matar Gueye Ousmane Sonko ngir doon dox tànki jàmme ci coow li ñeneen ñu demoon seeti ndawi APR yi yàkk nañu leen musiba mbelengaan muy Aïda Mbodj di Diop Decroix ba ci Alaaji Malick Gakou jeune républicain yi mu di waa COJER ak ñu àndal nee na ñooñee ñëpp li ñuy def jëfi fimiste la Seydou Gueye nii xët mu njëkku li mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko li ci war ñëpp moo di bàyyi yoon di justice mu réglé ko ñàkk di vaccin yi Sénégal doon rek jagle ci initiative COVAX soleil national nee nañu léegi tey suñu réew di senegal jot ca wàllam ne Sénégal yi yegg si nañu démb ba ñu teg leen ci loxoy ministre de la santé Abdoulaye Diouf àllarba ji di ñëw nag ca la ñuy jot lu toll ci 324 000 doses vaccin yu AstraZeneca comptoir